thank you internet de Lou'Bess TV ba tey ñi ngi si biir Cambérène di set mag yi nga xamante ne ñoom ñoo xam suñu wayjur boobu di Assane Ba ñi ngi fii nii ci set si suñu papa Niangora xanaa ma daal di lay nuyu rek papa. lay fay bu nu di wax bismillahi rahmaani rahim auzu billahi min seytaani rajim illa billahi bu nu sante yàlla julli si yonent bi ñaanal suñu xalifa Seydi ak Seydi Maxtaar yal na borom ba yàggal ko fi. sama borom ba defal ko ay xéewal. alaamaaleykum sama àggalal ko ay mébétam. barakatu rasulilah sallallahu di ñaanal suñu xalifa fi jóge di Seydi borom ba yeesal ay xéewalam. alaamaaleykum kattanu yàlla baaxu bàyyi laay. ah yëf nag moom xam naa ne xanaa dañ ciy jéem wax tuuti rek ndax yëf yi. Mm-hmm. yàgg na yàggul. ndax euh, Assane day waajoo xam ni. ah euh, rakka la waajur la sax booy seet ndax da yàgg nañu hmm. ndax ñun ñoo dëkk mu nekk sama rakk ma nekk ak magam sama morom muy kaala ba hmm. ah ñu yàgg nag ci loolu Assane di ku baax koo xam ne ki yàlla lii rek la ko xiirloon mooy lan mooy diine ji rek la bëggoon moo tax it eh, addit ah, mu doon ku baax ku tedd koo xam ne kii eh, lépp loolu lépp luñ ci mën a wax rek def naa am na lu ci des muy koo xam ne kii daal ku gëm yàlla ak baay laay ak sëy naay saarawadaa koo xam ne kii taxawaayam ci diini ji moom ah nattaka mën nañ ko natt nii rek ci wax mais nag ku am taxawaay la woon jàmbaar la woon trop man mi yàlla boole nañ ci ñaari ñi fa li ma nekk magam aussi yàlla boole woon ci ma yor rajo yëpp di ko kër di ko dox ci dëkk bi. yàlla dogal aussi ñu dem ba si àgg ma xaw di féete benn côté ma mu xiirtal ko ci. ba ma jël yëpp bàyyi ko gis nga mu ànd ak ay waajuram ak ay doomam nekk xale yoo xam ni toir li ñu bë seen mébét yàlla na sama borom àggale ko. ay doomam sax ku mel ni Seydi daal ci génn taxaw taxawaayu baayam ci wàllu jàng yi fu ku seen Seydi mu taxaw rek sa xol beeg. ndax ni muy tuddee yàlla ak ni papa mu daan defee ci moom rek nga ko mën a xaw a natte xaw natte laa wax sax ndax papaam neexul neexul a jot ndax sunu borom moo ko mayoon may googu ci ak daan daanaka booy seet boo xoo boo xoolul da nga naan Assane Assane rek mekk genre may la boo xam ne borom moo ko defoon ak ñaanu waay jur yi. Hmm. yàlla saam sama borom ba dolli ko ay leer. Hmm. ñu koy ñaanal bu baax di ko gërëm di ñaanal waay juróom yi ak leen gërëm leen sant. Euh, doomam doomam Seydi nag ba ci xale yu yor rajo yi sax euh, nu mu tëddee. Ndiin Thiaw ñoom ñëpp li mu leen xiir ku dégg ni kii doomu Assane la sax rek da ngay daal di xam ni doo sa xel dem ci dul diini ji ku gis koo xam ne kii Assane ma ko jur tim sa xel day dem ci diini ji. Hmm. loolu dafa nekk loo xam lii du jeex Assane du jeex. Hmm. dem na waaye demul parce que lépp léppam léegi diini ji la tey bu ma gisee doomu Assane. muy jàlla muy def leen man pour man mu ngi ci daayira bi wala mu ngi lijjanti beneen lu xew wala dara. Hmm. loolu la kon nag ah, nekk na koo xam ni kii ah ku amoon taxawaay la man mii daan wax sax waaye waa këram suñ fa ma tekkee rajo sax mu ne bu leen laaj bàyyi ñaaw góor ndax kóllëre bi ñu amoon ak yu bari yoo xam ni eh, taxawaayam boo xam bi taxawoon na ci wàllu diine ji taxaw sëñ Ablaye taxaw Assane taxaw na ko sëñ Ablaye taxaw taxaw na ko comme ñun ñii fu ñu daan dem. daaw ma dem fent asan tegu suñu wet waaw Assane ko ku baax la koo xam ne ki daal vraiment eh, lépp loo xam ni ñu ngi koy wax ci moom rek def naa daal ba tey daal man mënuma imaginer nii bon Assane lii la wala lee wala daal matériel diine la woon waaw matériel diine di ñaanal aussi euh, jarbaatam idde mm-hmm. taxawaayu naka taxaw gis naa ni mu ko taxawoo taxawaay bu rafet idée gis nga toujours bu lu xew Assane gis nga mm-hmm. ñaan yeeg yëpp loxew ñu ne Assane naa gam mm-hmm. ba léegi ah ku mel ni idée di nekk seen wayjur mm-hmm. e eh, taxaw leen taxaw boo xam ne bii xale yi indi ko parce que ñoom ñëpp ñu ngi jàpp ci lool kon nag leen di ñaanal yéen ñëpp ak waajur yi ak xale yi ak seen yaay surtout. yal na sama borom nga jàppale leen. yal na sama borom nga yàggal taxawaay bi daal laaj. kon nag ñu continuer rek comme ni leen ko waxee woon e, waxtaan tuuti ci mbiru loolu xale yi def di doomi Assane yi maanaam ay waa këram taxawaay bi ñu bëgg a taxaw. fàttali ko fàttali ko ci diine ji moo tax ñuy def ay son et lumière lépp ci mbiru diine ah comme li leen séenoo muy as muy Seydi. Mhm. ak euh, Jaari. ni ñoom itam ñoom ñëpp ñëpp gis nañ seen taxawaay ba tépp lépp lu ñu ci diine ñëpp sawar ci ndax diine moo tax kon nag eh, loolu ñu fas yéene def di ko def ngir yàlla ak yonent bi ak Baay Laay ak seen papa. Mhm. di ko ñaanalaale yàlla na sama ba àggali ko ci ñoom. leen luñ ci seenu yàlla na sama borom àggale leen barikatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam e eh, ñu leen séenoo daal mooy fépp mu leen seen ngeen di dox mm. muy ci dëkk muy ci feneen nañu toujours xam ni e ñu ngi commencé àggale gu ñu séenoo lépp ku gis doomu Assane muy dox rek e yaa ngi ci lu baax ci Cambérène ndax lii ñuy def euh, muy ku góor ki muy si ku jigéen ñi képp ku ci toog si kar sa xel sax day bëgg nga jël dara jox leen ndax ngir yàlla ak sa dëkte ndax seen taxawaay kon nag e son et lumière boobu ngeen di def Eh, yàlla na si am borom ba taxawu leen ci ndax ku dégg son et lumière rek yam ci dalay xaw a jaaxal mhm. waaye son et lumière diine la kon nag noonu ngeen ci bëgg a taxawee eh, ngir lépp pour pour pour rafetal diine bi ndax amélioration dafa am na diine daan doxe léegi dafa am leneen beneen façon bu muy doxe mhm. ngeen xam ka ànd ci ba pare di ko def yàlla na yàlla jàppale mhm. di ñaanal seen di ñaanal seen eh, kii seen jarbaar papa di idde mhm. ñu ngi koy ñaanal encore une fois yàlla na ko yàlla jàppale mm. ndax taxawaayam rafet na ci côté boobu jàppale na xale yi kontaan nañ ci moom trop yàlla na sama jàmm ñoom ñëpp wàllu bayti bi yëpp yàlla na sama def ci jàmm sàmm leen sàmm njaboot yëpp barikatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam man nag damay waajoo xam ni mbiru wax yu bari mënu mu cee xóotal mhm. ndax na yàlla ak bàyyi la ak seydi dana doy dana doy ba nga xam ni loolu moo tax mhm. ah yu ci bari duma ci xaw a sori. Mhm. Eh, di ñaanal suñu mag yi nga xam ne ñoo nekk fii eh, di président Djinada mooy sunu waajur. Mhm. actuellement moo fi nekk yàlla na ko yàlla jàppale. Mhm. Eh, ñoom ñëpp xam nañ ni waa kër daal amuñu leen wax macha allah yàlla na ba teg ñoom loxo jàppale leen ba lépp sot ci barakatu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam gërëm nañ leen sant leen ñaanal leen daal. mënoon naa gën a xóotal wax ji waaye nag pour simplement ñoom ñu xam ni junj dafa doy borom xel ba nga xam ni lépp luñ ci wax rek. ñu xam ni lii njabootu Assane ñoo ko taxawal luñ ci bëgg mooy bëgg ñu xam ba el bàyyi la kon nag yàlla ñu yàlla jàppale. Mm. dégg nga si barki barki ak seen télé bi yëpp. lu bees TV waaw lu ñu leen di ñaanal seen taxawaay yàlla na yàgg. amiin amiin ba jëmee leen kanam. ndax ah, lu mel nii baax na ci ndax eh, ñenn nañ ci bari. am na yoo xam ne bëgg nañ ko mais yu mel nii rek moo ko mën a indi. Mm. kon nag ñu ngi leen di ñaanal yal na sama borom dafa leen jàmm. di barkatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam télé bi mm. seen kilifa yi xam ne ñoo leen mm. ñu ngi leen di ñaanal yal sama borom ba defar seen i defar seen i mbir ba télé bi pa ba mu paase li si seen jot ci barke Baye lay woon mais raw laay sax. loolu am moom lañ ci sànni ginnaaw bu na sant yàlla gërëm. bay laay alayhi salaam yàlla na sama borom ba defal du jàmm defal ko mboolem jullit di ñaanal waa Ahlul Bayt yëpp encore yàlla na sama borom yàgg seen taxawaay sans exception boo gisee mu tudd mu tudd ci idda sax parce que yóbbaale na ñëpp ndax ku nekk ñu salaam mi rek boo ko tuddee na ñu si des kon nag ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla na sama borom defal leen jàmm defal ko mboolem jullit bi barikatu rasulillahi sallallahu taala jërë ngeen jëf ala mu amin xanaa ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom suñu wayjur bi di ñaagoora ah, di la wax jërëjëf say kàddu rafet na bu baax a baax mbokk yi da ngeen ñuy topp ba tey dañuy continuer di wéy ci li nga xamante ne moom moo di waxtaan bi dañuy dem seeti suñu beneen wayjur rek dikk ko micro bi mu wax ñu li nga xamante ne moom la xam ci suñu wayjur bu baax boobu di papa Assane Ba